aussi. wàllu mm-hmm. ngeen jaale ko wàññiwul dara. de presse 100 pour cent lutte bi dañ koy commencé ak sunu lamb nos confrères de sunu làmb dañuy def benn papier euh, Boucar Ndour si tafaatin dañuy def benn papier si Tafatine euh, si Balla Gaye 2 du moins ñu ne les cinq défis qui attende Balla Gaye 2. Mm-hmm. premier défi bi ñu ne s'entraîner pour redevenir un monstre physique Boucar premier défi la est pour selon toi. premier défi de Balla Gaye 2. waaw s'entraîner pour revenir pour redevenir un pour redevenir un monstre physique. Uh En tout cas, euh, du ma ne c'est pas impossible. waaye ah. ouais, ça va demander un travail. maanaam dina laaj liggéey. dina laaj euh, ambition. dina laaj aussi bëgg-bëgg. parce que Balla Gaye ak lu mën a xew c'est un très grand champion boo xamante ni de man dama jàpp ne il a fait ses beaux ci làmb tey man gis naa jàpp naa ne lépp lu muy amata si làmb rek fi mu toll nii peut être mën nañ ne euh, bénéfice la bénéfice mais nag mbër bi mu jël war a bëri moom muy tafaatin ñu gis tey euh, métamorphose bi yaramam def waaw à travers Eric Favre mu ah. jóge fi dem Côte d'Ivoire bi mu waajal combat ñu gis tafaatin bu doon contact biir bi di lagg jóge fii dem foofu gars yi tas ko complètement nga gis beneen tafaatin mu miiriir mu rétrécir Balla Gaye bu ko jëlee xam na ne am na liggéey bu koy xaar il paraît que nag inscrire nañ ko à l'INSEPS de Paris fa dem foofu nag peut être uh-huh. comme que demoon na fa contre Modou Lo ñu gis ne andi na résultat xëy na am nañ yaakaar ne bu fa demaatee mën na àndi résultat waaye ak lu mën xew daal euh, am na liggéey bu bu bu colossal bu koy xaar digganteem ak tafaatin uh-huh. na andi doole <coughs> na andi confort physique na andi état de boo xamante ni tey benn am benn supporter du am dara dara lu mu koy parce que bala quoi qu'on puisse dire mën na bëre yàlla may mm. mm. euh, boo xamante ni tey ñu dañ ci am satisfaction euh, père mo balaa ngay répondre si question boobu mm-hmm. pour redevenir un monstre physique na pour mu nekk monstre physique mm-hmm. mais balaa kër ngay répondre lu tax ngay jël avance Tapha Euh, yéen sax yéen a ko jëlloo seen bopp lan la. waaw li tax may ñuy jël avance Tapha di ci nuyu Pape Mamadou Fall président maa ngi koy nuyuwaale bu baax di ko baax di ko wa jox wàccuwaay. mais di ah. nuyu Lamine Kolo ak euh, ñi nga xamante ni ñoo. ak ñoom Xaadim ak Xaadim. Xaadim hmm. Guèye. Hmm. ak ki nga xamante ni mooy euh, Alioune Fall. waaw Moussa Fall bu Sa Thiès Andaw Ndiaye. du ñu bàyyi kenn parce que ñooñu ñoo ŋànk école bi. Ah. mais di jaale Waly Seck bu baax a baax a baax a baax. way juróom bi fi jógee muy jaaga yal na yàlla yokk ay leeram. amiin barke Seydina Mohamed. waaye nag booy leble lu baax. bu yàlla dogalee nga taseeg yàlla wala nga taseeg Seydina Mohamed nga xam ni kii moo mën a fay. kon jaaga yàlla na ko yàlla yërëm. amiin kon Seck ak moomee. Hmm. kullu ku bokk ci ñoom ak ku bokk ci ñoom. Hmm. Euh, li tax ngay jël avance Tapha Tine. xam combat bi ñun ñoo ko jëlal suñu bopp. ah bu mais euh, ngeen gis feebar yëpp ngeen jël Siteu. dafa am loo xamante ni pour mu yomb. Uh-huh. ci tafaatin yomb ci bàll Gaye 2. mooy dafa mel ni mosu ñu bëri tey la ñuy door bëri ndax combat déclenchement la ci wàllu roi des arènes Tapha dafa toll benn dimension boo xamante ni dafa war a am combat royal. Mm-hmm. dafa jaadu ci moom. Balla Gaye 2 jàppoon roi bi ñàkk ko te pour mu jëlaat roi bi. mooy foog mu ni rinkum ak Tapha tëral ko nam ko tërale woon soo ko mën a jëm jël combat royal. Tapha Tine yow mën naa tëral. non attends. waxal te Tapha maanaam moom mooy feebar bi nga xamante ni maanaam moom la ñuy tuddee city. city Balla ngay 2 ni moom a gënal booy bi wax na ko léegi Tapha bii du Tapha bële. iri faama bi nga xamante ni moom lay àndal. ci wàllu moyen mhm. psychologie bëgg ko ak bëgg mhm. ak gëmewul tafaa soxlawul daray tafaa mhm. moom mooy yëkkati alalam di ko def ci tafaa moo tax ma jàpp ni combat bi di ñëw contre Balla Gaye 2 dana doon combat boo nga xamante ni amaana mën na indi yeneen difficulté waaye nit ku la xam moytul ma ko. da ngeen xam da ngeen xam Tafa. dafa xam Tapha Tine. dafa xam tafaatin dafa xam tafaatin nee na ko. barki démb bu ñu lay tegal reer am na lu ñuy jëkk di la ko jox. xamu nu ñu ah, entrée ah entrée entrée. Ah. nee na man damaa xam sa entrée. mais père li ma bëggal xam. non damaa xam sa entrée. waaw ah. cest à mooy tafaa jàmbaar la borom doole la waaye est-ce que am na psychologique bu toll ni Balla Gaye 2 taxaw tafaa taxaw ak bi sifflé Balla dox ci kawam tafaa daw dajeeg Balla. da nga jàpp ne Tafa da ko ragal. non non non non ragalu géew. du à 100 pour cent ñeme gi du à 100 pour cent. Tafa ñemewul Balla à 100 pour cent. bala bala moo daan Balla Gaye 2 da koy ñeme ba supérieur ko li ko Balla Gaye 2 di def mu dem def ko ko. dox ci kawam dóor ko indi daw jàpp ko. question bi ma la bëgg a laaj est-ce que nekkul na yéen. déglu da ngeen préparé Tafa waajal ko ba pare door ko laaj est-ce que loolu. xam nga loolu yëfu sénégalais la. non damay laaj rek te xoolal man doon naa xaar question boobu. parce que li tax doon naa ko xaar. jékki-jékki rek ne. waaw laajal Tafa aussi. voilà xam nga man daan naa xaar question bu ah. xaar question ah. mooy euh, dafa am lu ma la wax ci début bi. te comprendre ko euh, euh, Tafa dafa am dafa taxaw point mort sax laa mën a wax. waaw Balla Gaye dafa taxaw point mais pour ñoom ñu déclenché mooy kenn ki day daan moroom ba bokk ci gàttal. pour mën a dem ci Modou Lo. waaw gi ndax da da ngeen liggéey Tafa te soog ko jël li kii wax nii. Ah. barki Seydil Hadji Malick dañoo xam ne làmb ju war la. moo waral ñu jël ko mais du dañ koo jekku ba pare dóor koo jël. te man xa déggoo man la man déggoo man la man doon naa xaar question bi. Uh-huh. que ni dinañ ma ko laaj ndax ni ñu jëlee tafaatin mais am na fu gën a nooy si yéen parce que ñu ngi doon wax seen diggante ak Siteu te amaana tey Balla Gaye de tey bu dee côté moyen mhm. tey peut amaana tey kase bi mënoon am si Siteu amaana mën na a am si tafaatin mhm. boo xamante ni de booy bëre moom dañ lay mhm. na fi ñuy wax pare gu ñu Aziz ne non na jël tafaatin est-ce que est-ce que déglu nga est-ce que déglu nga Gris Bordeaux dafa am na benn adversaire bu ñu doon dox Balla Gaye mu lànk moom mu ne non logique kan la ci mbër yi. Hmm. jour boobu am na ku ñu doon wax ni Balla Gaye mu ne non logique carrément moo ko wax waaye ñëw dëpp ko micro bi mu jaaraat ci lii logique gul. Hmm. loolu man la concerné. Hmm. logique pour wax la ni la. bëri ak tafaatin euh, Balla Gaye ak Siteu lu jaadu la. waaw war la parce que Siteu mbër mënatu ko bañ ci àdduna. ndax waxuma la dara waxuma la dara doole ja du du du am am ba. mais psychologique bi mu amee ci wàllu làmb te bu dikkee estat def fi lu benn mbër mosul def ci Sénégal kon war na ko mën jël uh-huh. Uh-huh. mais dinaa la xamal ni la bu leen jàppee ni hmm. ñun dañoo jekku tafaatin jël ko làmb moonu boole waajal ko ba pare door ko jël làmb moonu <laughs> boole Balla Gaye 2 dem jëli tafaatin muy làmb joo xamante ni sii hmm. làmb bu ne jaar na fi hmm. mais tey ngay gis lamb ju musul mais mais man dafa si sa si sa propos yi si sa propos dafa am lu ma si jaaxal da ne tafaatin ñemewul Balla. loolu dafa maa jaaxal loolu fa la nga teg. si parce que xam nga ndox du bàyyi yoonam. njeexaat foofu foreb doom delloo fa sab loxo. Hmm. man wolof laay wax yéen ay tubaab ngeen. mais fanu jaaroon tafaa pour affronter ko am ci moom victoire fu ko raw la ñuy jaar ci moom xam nga lu tax dañ koo xam. te xamuñu. mais est-ce que Balla bu 2013 moom mooy Balla bu 2024. mais bii di ñëw nii lay raw booba. si naka si naka parce ñoom waa suñu la am nee ne pour redevenir un mode physique. est-ce que loolu mun ngeen ko def. sa waay wax na ko léegi. waaw. dafa am benn xam nga bu fekkee da ngay dem guerre. Hmm. da ngay yóbbu fit yóbbu fital. waaw bu nu yaakaaree da ngay fit nga fetal bu nu yaakaaree da ngay fetal nga fitt loolu moo dal ci diggante ak tafaatin am na loo xamante ni si stratégie bi ni teg ba bu ëllëgee tafaa daraat gémmañam jommi ci Balla Gaye 2. Ah. loolu ah, duñ ko wax fii. mais ñun am nañu benn système bu ñu war a dunde ak moom boo xamante ni maanaam dama jàpp ni sax bii di ñëw mooy gën a yomb bu njëkk ba. mais mais instant T bi xam ngeen ne moo leen gën a jekk wala. non d' accord la. non attends d' accord nga lu tax d' accord lu tax mooy Tapha euh, moom bindam loolu loolu la yàlla dogal ci moom muy bindam. waaw ah. xam nga combat bu njëkk ba. Balla dafa ñëw taxaw tafaa taxaw mu ne ko xoolal sa loxo yu sew yi yow liggéeyoo moom la waxaat nii Balla Gaye Balla gay ne ko damaa kontaan ci yow parce que li tax damaa kontaan mooy dangaa fekk samay faay nga wax ma ko kon man xam naa ni su ëllëgee ci kàttanu yàlla bu nu jàkkaarloo da xam ni lépp dëgg la mooy kon tafaa ak nu mu mën a demee ci àdduna ak xam-xam bu Balla Gaye de mën a am ci àdduna day dem wuti doole liggéey wér ñëw am forme soo ko mën a affronter tafaatin daan ko te ñun loolu ñu ngi ciy liggéey. bu amulee forme mënu mënu ko mënu ko affronter non parce que actuellement nii nii nii nii nii. Ah. dimension bi tafaa toll. waaw ku ko bëgg daan da ngay dem liggéey. Hmm. ku leen xaq wala dëgg yàllaa ko moom. Ah. booy bi wax na ko parce que am na moyen léegi. Ah. entraîné am na couverture mais am na ndey. bu njëkk nag soo waxee dañu kam yi kam yi kam yi kam yi di daw kam yi ba tàbbi ci biir. mais xëy na amaana léegi. ak euh, staff bi mu amee nii. waaw mooy ëllëg mën nañu séntu ci moom ni xëy na Balla mën na ko ñëw daan. Hmm. mais ci kaw daan bi aussi du doon loo xamante ne comme xëy na na mu demee woon la. Hmm. waaye li ma la bëgg a xamal daal mooy bàyyi Ndiaye. waaw juumul juumul. maa ngi koy nuyu le passage. Balla Gaye juumul sant Baye Ndiaye juumul. waaw Balla Gaye de waaye Tapha juumul ndax Tapha pour mu bëre combat royal fokk mu xaar sifflet ci kaw Balla Gaye de. Hmm. loolu dana am. moo tax ma jàpp ni booy boobu muñ rek te xam ni. Ah. ñun ñoo di am na nattoom. Ah. te buñ dajee ëllëg ngay xam li ma la wax. Hmm. Balla Gaye de dafa garaaw moom rëyul rek am fit ponkalu rek am fit. dafa judduwaale fit. mën na bëri macha allah. maanaam dafa boole ñett yoo xamante ni sii moom la ñuy xaar ci doomu aadama am na fit bu ko neexee am doole mën naa bëri. Hmm. xam na fi muy teg tànkam. kon bu tafaat ni mu la déggee nii yëpp kot Tafatine amul sens ci combat boobu. non am na ci euh, xëy na mun na am benn instant mu am ci benn sens ci wàllu fooru xeex ak ay affaire yooyu. Uh-huh. mais est-ce que xeex bi mu jàpp ni moom. Uh-huh. su ko privilégié ñëw jàkkaarloo ak Balla Gaye 2 est-ce que Balla dina ko bàyyi mu koy kor di dóor ay épercure rek di dóor ay kurpañ ca kaw parce que Balla xeexu mbedd ak xeexu box bokkul. dëgg la. xeexu box la Tafatine di dóor da ngay ñëw mu lay jam. Uh-huh. léegi bu la jamee droit yaa ngi dégg nga daw màmm ci kawam. mu ñëw ngeen ni rënkum mu daw kor la ca kaw dóor épercute ci suuf. Hmm. mais kooku du Balla gay dëgg toujours benn question. bëgg naa Balla moom mooy am Diop andi Ndiaye. am Diop andi loolu moom xam. Ah. loolu ba léegi am Diop andi Ndiaye. tey la ko gën a tey la fa gën a ne. mais léegi dama lay posé parce que du bàyyi yoonam. Balla lan moo waral Balla nu mu meloon jékki-jékki rek melatu ko lan la qu'est-ce qu'il y a foo indi problème mu Balla Gaye lan la. waa mais parce que nit nit rek mën a doon nit nit rek la mën a doon da ngay jékki ñu naa non mais sa waay moom dafa dafa dafa dafa dafa dafa avancé woon léegi mais léegi dafa arriéré wala ñu ne léegi dafa dafa amoon forme mais forme bi léegi dafa baissé wu mais loolu dafa bokk ci nit moom matul. Hmm. nit moom matul yenn saa yi da ngay nekk ci benn yoon ko xam na li ma koy wax. Hmm. da ngay yor benn joueur boo xamante ni booy bi ren dafay toj saison bi mais déwén ñëw doo comprendre mooy waral ñu koy tuumaal naa noo xoolal dafa topp. yaay booy yi wala dafa topp nangam. léegi day tox cigarette wala léegi day naan sàngara wala nangam nangam nangam. te amaana du loolu. mais nit moo moo mooy mooy toll benn dimension boo xamante ni si mënoo dëkk ci meilleur. foog nga am benn euh, baisse xamante ni si da nga koy def ci sa biir sport tellement que ba ñu comprendre sax mën nañ la sikk. yaakaar da ngay léegi li ma bëgg laaj aussi parce que am na sax ko koy posé fii ci ci commentaire yi. Mhm. parce que yéen Eumeu ngeen waroon bëreel. waaw ngeen ba ko fi. lu tax ngeen non tele ko ak Sa Thiès mais mais du ci ñun Abdou Aziz Ndiaye leeral na ko ba mu leer nañ ci wàllu prix la mhm. ci wàllu njëg la mhm. mais ci wàllu jëndante la ak jaayante mhm. mais mais père est du daw tamit non non non du daw leen billaahi daw amu ci xam nga Abdou Aziz dama ko analyser mais du waxantu xamul tax du waxantu dañu mës a toog arène national booy euh, Modou Mbaye ñëw di ko dëpp micro ni ko waa mais seen diggante ak Eumeu mu ne ko loolu kañ la mu ne ko eh, loolu kañ la ngay wax seen diggante gi seen ñu koy préparé mu ne non boobu combat yëgu ma xam nga lu tax yëgu ma ko mooy dégg nga li mu expliqué ci wàllu bala ngaa laax jaay da ngay laax lekk. Mhm. bon nit su fekkente ni si dangay ngay def leen teg moom maag Iba Pen maag Iba Kan ñuy jaayante ko jëndënte te ci kaw li ñuy jaayante ko jëndante yow am na lu ñu seqoon loo xamante ni si. njëndante meeg jaayante mi avance bi ñu ma ci avance woon maanaam reliquant ba maa ngi koy xaar depuis presque daaw ba ren mënuma cee jot ba pare nga retourné bëgg a jaar ci diggante bi taxawal fi benn prix boo xam wala benn contrant boo xamante ni sii mhm. bokkul ak lan ma amee loon te man bala maa accepté ni dañoo war a mën a defaat mooy bor ba nga ma yoroon da nga ma koy fay mhm. kon déjà foofu combat amu fa bi yàlla dogalee dix millions yi nga xamante ni moo desoon moom promoteur bi bëgg koo avance Balla Gaye numéro 2 yaa ngi dégg la ma la wax baax 10 millions yooyee dafa ñëw ñu boole ñu ñu dugal ko ca 75 15 euh, euh, euh, millions yi des reliquat quoi. reliquat bi desoon muy 15 millions yi dañoo jël 10 millions yi dugal ca kon yow amagoo fa contrat léegi contrat bi ngay am pour ñu mën ko régulariser mooy da ngay fay bor bi ba pare. dem yëkkatiwaat beneen 10 millions wala benn 20 millions jox ko mbër mi. wala nga yóbbu ko CNG ñu xam ni yow mii dugal nga avance looloo waral Abdou Aziz Ndiaye xamal leen ni leen fii komba amu fii te dëgg la combat amu fi bi ñu waxtaanee nag déggoo le temps boobu xaar amul euh, adversaire Sa Thiès mi ngi taxaw Eumeu seen bëgg na ko ñu taxawal combat bi mais moytu amu ci mais xam ngeen ne dugal ngeen ci Balla Gaye ci combat bi gën a risqué ci carrière am est-ce que xam ngeen loolu muy kan Balla Gaye numéro waaw dugal ngeen ko si combat bi gën a risqué ci sa gis-gis mais loolu loolu la ex spécialiste. mais combat boobu noonu foog naa ne médical bu Balla Gaye dugaloon moo taxoon ñu. ñu non non ma ne moom dugal ngeen ko ci combat bi gën a am risque ci carrière waaw mais ci ci fii fii dimension bi Tapha toll. waaw actuellement nii. Hmm. loo bañ bañ lëg ni ak a guddi nopp. waaw képp ku koy jël. di nga waaj jamono yi nga waaj uh-huh. da nga waaj bi da nga liggéey. Hmm. da nga wuti doole da nga am gàllaaj. Hmm. da nga am fit. da nga mën a bëre. doole boobu Balla Gaye dina ko ñu. ànd ci kattanu yàlla mm. ci kattanu yàlla. Mm. njeexaat foo fore doom delloo fa sab loxo. Mm. mais Balla 86 la judd xale la. dëgg la mais dama ni mag ñi dañ daa di dem ci dëkk. daw bu jub dëkk bi taxaw. solo fa sëlmu fa changé fa yére. sol fay dàll boo waxee ñun nañ bàyyi ba xaat jàll. est-ce xam nga ne boo ñaar bi la daan tafaatin da ko daan. mais est-ce xam nga ne Bombardier bi la daan tafaatin da ko daan. mais ban manière la ko daane. ban manière la tafaatin daane Boy Niang ci luur bu toll ni tafaatin au point Boy Niang affronté ko daw dóor ko une yéeg ci kawam takk ko centre de presse yéeg ko caxabal kal ko mbot ko xatar bi ko lu ne def na ko ci biir action bi te tafaatin amul risque téye Boy Niang ba mu du ba mu xiir mu buddi ba ci kaw mu dóor ci suuf comme ni Modou Lo def hmm. lan ban ban victoire la am ci Boy Niang Mm-hmm. buddi dóor la suuf wala caxabal la wala. yéeg la wala par décision arbitre. médical kon déjà moo lay wax ni la. Mm-hmm. moom puissance am war na man appliquer lu raw fii dimension bi mu toll muy euh, euh, euh, Moustapha Tine. Mm-hmm. il faut pour mu daan Balla Gaye numéro 2 daf koy supérieur ci psychologie supérieur ko ci fit supérieur ko ci doole supérieur ko ci bëre soo ko mën daal. Eumeu seen bi la daan Tapha Tine daan na ko barki démb. ëmma euh, euh, euh, seen bi nga daw. non ëmma. Ah. yàlla na am jàmm te yàgg fii. ku mën a bëree ngi noonu. Ah. macha allah ndeysaan ku juumul doo daanu. Mm-hmm. mais ëmma seen tafaatin moom tafaatin moo la gën a xam ni c'est le meilleur ëmma seen. wallahi laasim loo bañ bañ lëg ni ak. waa tafaatin boobu nag moo daan le meilleur. léegi nag gis nga boo xoolee làmb ja na mu demee. Mm-hmm. nga xam ni. gàllaaj du cent pour cent du cinquante pour cent mais quinze pour cent boobu mu nekk noonu mën naa toj àdduna bi bi ñu nee rënku ngóor sa daw ni ko tëf tëf dóor ko épercure xeex ak moom ca kaw jam ko laaw ga mu daw sëpp mu daw dal ci kaw su fekkente ni sii fii nga xamante ni moom la tax a nekk ci boppam bu nekkoon ci ginnaaw tafaatin tey nga xam ni Eumeu seen moo mën a bëri moo mën a xeex mais doole yi góor ci loos la ne moo tax bi am ne cap rek bi mu siggee rek ama daal fi tax mhm. daw di ko wër ndomba tafa dóor ko crise bi mu dem mu dem mais pour wax la ni la ñun dañoo xam anti bi nga xamante ni sii tey mooy daaneel tafaatin mii mhm. ñun dañ koo xam loolu yàlla may moo tax ma ne la te Balla Gaye 2 waxoon na ni mhm. kon yaa ngi rejoindre Boucar lu mu leen wax da ngeen da ngeen liggéey waaj ba mu dee da ngeen ba mu dee anti ak liggéey bokkul anti mooy lan. maanaam mbër du du fecc day yolomal rek nañ waxante dëgg. mais da ngeen rey waaj ba mu dee. jël avance bi déedéet si si si rey ñu ko de waaj da ngeen ko nelawal rey ñu ko de. rey yow avance bi dimanche rek fat fat lundi mardi ngeen jël avance. parce que dafa doon bëri ñoom ñaar dafa ñor. Tafa bu bëree ba bàyyi te daanu Balla Gaye day day mel suñu. Tafa mënoon na xaar Modou Lo. non non non parce que Modou déggoo li wax. dafa déclaré ni moom day noppalu waa noflaay bi muy noppulu coach. koo xamante ni xamoo ren lay bare xamoo ginnaaw déwén lay pare. xamoo mais mais yéen bëggoon bëggoon ngeen Modou Lo. mais bien sûr bëgg am ko ni daw ci làmb déggoo li Balla Gaye wax moom wax da ni fii mu toog nii mënut a ñibbitu yóbbaalewul avance. ah Modou Lo daa yomb sitewul sitewul Taphatine de sitewul Modou waaye dépassé na foofu Balla gay numéro 2 ku daan Yékini daan Baboye. loolu 2012 la woon de. ci manière yi mu leen daane retourné naan ay damaa bëgg diw mais nga xam ni kon matul li mu doon moom. làmb moo leen boole moo waral ñu tëgg diggante ki nga xamante ni mooy tafaatin ak Balla Gaye numéro 2. mais kon daal ak lépp lu munti am après école de lutte Balla Gaye dina ko assumer. te ci kattanu yàlla. incha allahu taala parce làmb ñun ñoo ko jël suñu bopp. ko jël suñu comme ñun ñoo ko jël suñu bopp nag ñun ñoo koy assumer suñu bopp. jërëjëf donc ñu continuer toujours ci revue de bi toujours ci Balla Gaye 2 mhm. ci défi yi ko xam ne mu ngi koy xaar nee nañu avoir de la force intérieure ñu ne parfaire sa bagarre mu ne bagarre moom da ko war a liggéey bu baax a baax mhm. Balla mënul bagarre mais mbaa xam nga ni képp ku nu ku Balla Moussa dajal coach dañu naan Balla Gaye 2 mun ta xeex mhm. te kim ñi muy dajeel ci ñi mën a xeex ñépp da may limal kenn ku ci musa yóbbu ardo Balla Gaye numéro 2 da mën a diw Gris Bordeaux dàq xeex ci réew mi. maa ngi koy nuyu de passage. taalibi Seydi Bokar Si. Hmm. Eumeu Sène dàq xeex ci réew mi yaa ngi dégg Bombardier dàq xeex ci réew mi mais amul kenn koo xamante ni si yaa ngi ci dajeeg Balla Gaye am Diop andi Ndiaye te wari woo hmm. amul donc ñu continuer toujours. parce que xeexu mbëdd comme li ma la wax ak xeexu box bokkul. moom bu ne un deux trois. Mm-hmm. daw sànni laaw gi da ngay di daje dóoral ma dóor dóoral ma dóor. Mm-hmm. foofu nag mën a xeex amul fa fit moo fa ne. Mm-hmm. donc bu ñu jógee si. ku ëpp fit rek jàpp avantage. troisième point bi ñu dem si quatrième point bi ñu ne euh, Balla Gaye 2 dafa war a étoffer staffam staff bi daal da ko war a gën a étoffer yaatal ko seen staff bi euh, étoffer ngeen ko wala. d'accord naa. staff bi xanaa Balla kese la ak. famille non non daa famille Aziz Ndiaye xamal xamal tax d'accord naa. Hmm. mooy euh, nit looy def mu dig la bu ko bàyyi. dëgg la parce que ki nga xamante ni tey mooy président Moussa Ndiaye mi fi nekkoon. ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage waaw ak Issa Diop. Uh-huh. su ma ndijaay. nga xam ne ñoo doon président école bi. tey bu yàlla dogalee. ñu téye école bi ba école bi si fii. Hmm. am woy wu benn école musul am ci àdduna. Hmm. léegi la rek mais keroog ba ñuy def sondage bi. Hmm. yow yaa génne ni école de lutte Balla Gaye mooy premier. ci école de lutte Sénégal uh-huh. loolu yàgg na. Uh-huh. Iba Kane ku ne xam na ko macha allah mais euh, staff boobu noonu euh, li yonent bi wax rek àndandoo yërmande leen. dàqali koo mbugal la gis nga mbër ak buur moo yam. bul dàq bul boddi. soo ko defee dee parce que bal bi lay rey ki nga bodd moo ko yor. dala hmm. koy téere nga faatu. kon staff boobu ngay wax noonu. Hmm. lu mu gën a yaatu moo gën. Abdou dafa am rôle bu muy def ci Balla Gaye. Hmm. Baye Ndiaye. promoteur la moom day tëgg làmp yaa ngi dégg mais Balla Gaye 2 bëre lay def. mais Père Mbow. ak ak ak ak ak Ibakan ak keneen ak keneen ak keneen. Hmm. seen du lu ñuy teg ci mbedd bi di ko vilipender. Hmm. ñoom lu ñuy def huis lay def. ci hmm. suuf lañ koy def pour li nga xamante ni si tey mooy bal bi ñuy mën a tirer suñu adversaire pour mu dem terre. moo tax ma ni la. Uh-huh. staff bi noonu nga wax noonu lu mu gën a yaatu. gën a baax doyul. Thierno Gueye lu tax ngeen écarté ko. Thierno Gueye Balla Gaye la mooy seen problème. non écarté amu ci. ah na fu ma koy gis waaye gisatuñu ko. ci a porte parole bëgg nañu xam lan mooy problème yéen yéen a gis problème. ah mais gisatuma Thierno Gueye non attends si nekkatuñu ah mais nekkatuñu gisatuñu ko. non dafa ndànk xam nga li gën a garaaw ci àdduna mooy moo tax tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. ñu mën a woon moo woon photo Thierno Gueye. non mais c'est vrai wan ñu photo Thierno Gueye le réalisateur. non foog ñu leeral loolu Thierno. waaw ah. la ak mais àndatuñu. est-ce amul benn jour bu si dugg koo xamante ni si yaa ngi dugg di ci wax. Ah. na nga ci wax loo xam. mais lu tax Thierno gi waaw dégg gisatuñ ko. non déggoo li ma la wax. waaw Thierno liggéey ci gannaaw moo gën a garaaw muy liggéey ci kanam. mais Thierno kilifa la léegi. non mais Thierno da doon présent 100 pour 100. moom laa la wax xam nga. xar day weesu mbote cest à du question ne dafa ñëw bàyyi Balla Gaye de mais li doon liggéey ci kanam. Mm-hmm. lu ko raw lay liggéey ci biir. mais gisatu ko ci biir géew bi. léegi nag gisatu ko mu sotteeku nga laaj. gisatu ko mu takkal ko dara. bi ki nga xam ne mooy ceeno gi lan la comme yéen loolu leen jaaxal. waaw te ñun xëy na dañu andi woon benn stratégie bu bees. waaw boo xamante ni euh, yenn dégâts yi wala yenn débats yi ñu ngi koy def ci sunu stratégie bopp sunu xel bopp. Mm-hmm. te leen ko noonu. waaw ci yàlla combat bii di ñëw di ngeen gis lu ngeen musul gis Thierno Gueye dina fa nekk di ngeen gis lu ngeen. mos a gis a man lem la laaj ndax Thierno Gueye dina ñëwaat. lépp boo ma xanaa dama la ah. ne. xam nga Thierno Gueye dana ñëw du ñëw. Hmm. bu ma taxawee fii di ko wax dootul neex. Ah. mais danaa la wax ni la dinaa la andil surprise bu la jaaxal ci combat bii di ñëw. Hmm. mbaa xam nga ni école du Balla Gaye léegi dañ ko dañ ko defaraat ci façon boo xamante ni muy président pamamam gi mii. Hmm. nga xam moo ko géré. Ah. am na benn stratégie bu ñu teg boo xamante ni si dem nañu ba. léegi mbër ya fa ne kenn ku ne da ngay am. carte membre la ak garaaw si ku mel nii est-ce que ku mel nii di ko am waaw wuy bàyyi ko ginnaaw. non non bàyyiwuñ ko mooy problème ko ginnaaw xanaa déggoo ma la xanaa straté stratégie la léegi ci kattanu yàlla combat bi di ñëw. moo andi woon Balla Tapha Tine de. dégg nag combat bii di ñëw di nga am surprise. ci diggante mais mënu ma gëm surprise. parce que gis nga Thierno Gueye ak Balla Gaye numéro 2. parce que déggoo li ma la xanaa dafa am leneen lu bees. lu ñu mhm. lu ñu taxawal ci école bi. waaw loo xamante ni si euh, du yàgg dara danaa la wax woo Ibakar ni la wuyul président léegi wool ma chute yi wala nga wool ma presse en ligne. Mhm. ñëw am lu ñu génneel Sénégal lu bees tàq loo xamante ni. Mhm. maanaam day kawe njort parce que yow yow personnellement yow. foo mën a toog ci àdduna dégg ni école du lutte Balla Gaye tas na doo am loo neex. déedéet yàlla bu mu tas. dégg nga ma wula déggoo ma. yàlla bu mu tas moo tax ma ni la. Uh-huh. am na benn liggéey bu bees bu président bi def jële ko ci loxol mag ñi fi nekkoon mhm. muy grand mbay Samb grand président Moussa Ndiaye ak grand Issa mhm. ñoom Alioune Fall waaw toujours baal ma tuuti mhm. Balla Gaye estafam ñu bëri dafa mel ni jóge nañu fa de wala loolu amul waa non noonu non non parce que xam nga nag benn instant ah toll ci ci àdduna foo xamante ni temps moo dootul am daf ko raxas wala ñoo ñoo defal seen bopp non non raxasum ko raxasu gisatuma fa booy yu bari. waaw parce que li tax booy yu bari mooy am na ci booy yu bari yoo xam dañoo tukki. Hmm. waaw am na ci booy yoo xam dañoo xut parce que xar day weesu mbote. Hmm. xam nga Balla Gaye 2 bu fekkee dañuy ànd ak moom di ànd ak moom di liggéey ak moom di liggéey ak moom jël roi des arènes. Hmm. ñun dans le norme waroon nañoo mën a am pour nag débarrassé wu dem seeti leneen mu am beneen relève boo xamante ni si ñoom ñoo koy gunge dem parce que ñun it ëllëg. suñuy doom wala ñun dañuy bëgg dara. nekk ci benn dimension boo xamante ni sii du tee. ba léegi nii yaa ngi bokk ci Balla Gaye 2 mais xëy na sa temps dootu la may loolu. Mhm. mooy waral mu demee nii nga yaakaar ni dafa. mais raxasul daal est non non non wu si kenn non parce que nag melul noonu. amul ñu demi amul ñu ne noonu nit da nga koy waxal jikko. Ah. xëy na yow yaay xool ba xay ba jàpp ni. dimension bi nga nekk wala niveau bi nga nekk arrangé tout la. Hmm. mais yéen est-ce que yéen a ngi toog ak Balla Gaye di ko tenir des propos véridiques. bien sûr am na def nañ benn petite réunion boo xam fóotum biir la ko olof di tuddee. mooy bi leen boo ñaa daanee barki dem boo njaay fii ci kër Pape Mama Fall. waaw président bu bees bi. Hmm. maanaam wax naa tañ fa waxtaan boo xamante ni si li moom laa lay wax ni la bala ñu ko mën génne. mooy il faut ñu passé yi wuute woote assemblée générale boo xamante ni si Iba Kane la ñu woo mu ñëw ñu woo journaliste ñëw ñu toog ñu wax leen leen ban dimension lañ xam nga ne bawol bawol yi takk takku nañu ba dëgër de te dañ leen bëgg daal mais ci ñun lañ ko gisee ci ñun lañ ko gisee way Balla Gaye 2 bu Moussa dugg si diggante Mor Fadam hmm. Njaga Saar Njaga Saar dem si yàlla yaa ngi dégg uh-huh. ak euh, Waalo waaw ñu takku écrit Pape Mohamed Ali Mohamed Ali. ñëw ñëpp ñëw taxaw loolu bu ko bawoo dégg si Guédiawaye lañ ko gisee. ba Balla Gaye numéro 2. Mhm. di bootante ak Lac de waaw ca stade Demba Diop. dëgg donc toujours ñu continuer si revue de presse bi nee nañu défi numéro 5 avoir bon bonne hygiène de vie seen mbër bi am na hygiène de vie bu baax. si si si. parce que boo xoolee psychologiquement. Balla Gaye grand grand est-ce que xam nga ne kii day day caresser Balla. dans le sens du poil. Ah ah. amaana li nga wax aussi c'est légitime. pootum bu ngeen nekk. amaana peut lu ngeen war a wax Balla sax du fi ngeen koy waxee. Balla de mhm. loolu dañ la koy nangul. Ah. mais tey bala tey. Mhm. yaakaar naa ne comme li ko wuli doon tooñee naan ko wàññi soow mi. Mhm. Ah. mais du question. comme maanaam ndax amul hygiène de vie waxal waxal amul hygiène de vie. mais comme maanaam tey par rapport ak tey Balla Gaye te tey nit ñi liñ bëgg ci moom. dañ gis ne dafa xaw a des. Balla ku ne xam na ne gaynde la mm-hmm. ku ne xam na ne champion mm-hmm. ku ne xam na ne ndaanaan mm-hmm. bërikat la mais nag yaakaar naa dafa am lu ñu di xaar si moom mooy maanaam tey heure bu simee koo même ñi ko faralul sax xam ne Balla Gaye à cent pour cent wala bala Gaye à quatre-vingt pour cent ñëw na ci làmb ji xam nga lan mooy premier charme mbër mooy li nga wax forme physique forme boobu moo ngi si moom loo mën a doon ak koo mën a doon loo mën a mel boo nuy sumeet ñu jëppi la rek boo doon daan Sénégal gépp kenn du kontaan kenn du moo tax loolu dama la koy nangul à cent pour cent te li nga wax nii dafay question boo xamante ni dafay question bu am solo mhm. ndax mi ngi toog di ñu seetaan mhm. mi ngi ñuy déglu mhm. kon bu yàlla dogalee ñu ci expliquer xëy na li ñuy wax naan uude bu dee wax ci bëy wopp dañuy yaakaar ni der baa soo waxee lu positif loo xamante ni si man leer na ma ne mën na ma arrangé ëllëg sama leader dama lay accepter te loolu ngoo wax dama la ko accepter mo lu mu da def ci àdduna lu mu mën a def. na entraîné. bu demee entraîné ji. Hmm. ñëw taxaw def li mu war a def. Hmm. yëngu ñu xam ni Balla Gaye 2 moo woon ñëwaat na. Hmm. moo nu dàqal lu ñu mën a am caa. coach déglu nga débat bi. waaw déglu naa leen lan nga wax ci porte parole Balla Gaye défend lu muy défendre Balla gay 2 nag par rapport à pour redevenir un monstre physique avoir une force intérieur parfaire sa bagarre étoffer son staff avoir une bonne hygiène de vie Balla Gaye 2 mun na ko amaat lii. waaw en résumé en résumé ku ne xam na ne Balla Gaye 2 peut-être que am na yoon bu mu nekkoon boo xam ne naturellement Modou moo ko ci indiwaat ndax moom Modou bi peut-être day am ay yoo xam ne adversaire naturel la muy Modou muy Balla Gaye kenn du ci may moroomam dërëm lum la daane te loolu naturellement looloo ko yóbboon INSEP ba mu indi ci forme boo xam ne mm. bi mu nee Modou yëkkatil moo du yëkkatiwul. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw biñ summeekoo it xam nañ ne Balla moo ëpp mm-hmm. bi combat bi déroulé won na ko. endurance beeg. athlétiquement physique ak yëpp ñëw. donc loolu nii mooy mooy mooy équation combat bi. lépp lu ci nit mënti wax. foo mën a dugg ak foo mën a génn bële 92 la woon ak temps bii la woon ak lii. Balla Gaye tànk entraîné wul ba jot cent pour cent. munul cee génn. donc loolu wax boo munti wax yow risque nga def mm-hmm. ci moom lay des mm-hmm. moom mooy entraîner à valeur exacte mm-hmm. def sacrifice yi ci war pour mën a ñëw affronter tafaatinu heure bi nga xam ne confiance bi totale la te il a le temps le juillet waaw mooy loolu day des ci moom mu def sacrifice yëpp pour reconquérir sa population reconquérir tamit fans club am ak ñëpp ñi koy béggee mu bégal leen moom tamit pour mu rebondir. Mhm. nekkaat Balla ma ñu xamoon. Mhm. waaw bien ka du évident dafa métti. jërëjëf mhm. euh, coach li nga de ah. parole yi nga sànni si Balla Gaye toujours dañuy terminer ak sunu lamb ñu jóge si dem si jëm si ki nga xam ne mooy record record la ñuy dem record moom dafa jox parole ki nga xam ne mooy rëg-rëg nee na rëg-rëg nee na jour bi may bëri Modou Lo dinañ ma tam dëmm waaw ils vont lui tirer le chapeau rëg-rëg Modou dafay combat boo xamante ni aussi euh, li ñuy wax rek ku yóbbu bàyyi ko xel. Reug Reug Modou waaw. ñu bàyyi ko xel xam nga xam nga xam nga xam nga ndox muy wal moom. Ah. te xamoo fu muy teere ji da nga koy teel a kar. Mm-hmm. mbaa xam nga ni Reug Reug ku ko jëlul tey bu ëllëgee boo ko jëlee ca gannaaw day gën a metti dafa boole ñett mm-hmm. bërikat la mën naa am doole. Mm-hmm. te du ragal. te du ragal te du ragal. Euh, xëy na nag bataille bi muy dawal pour mën a am Modou waaw mooy loolu mu wax lay mën a wax quoi. Mhm. pour Modou Lo wu. te Modou euh, jaru ko ndax Modou moom moo demandé nii man samay rakk laay jox revanche kon jaru loolu. jaru parce que li tax ma naw Modou te bàyyi ko xel ci dimension bi mu toll ba pare ñëw di appliquer mooy li mu waxoon du ca dellu tàngal bi ci kaw sonn naa ci. te mhm. dëgg la. Mhm. tàngal nañu tàngalaat ba jëfi far forox mhm. léegi nag mu wàcc def devoiram ni samay rakk laay jël si mhm. kon bataille psychologie boobu Reug Reug di def jaru ko na liggéey bu heure jotam bu heure euh, euh, euh, jël kiyam Modou Lo jotee doo koy ñëw tàllal loxo parce que moom moo wax ni samay rakk laay jox revanche ku bëri ak Ama Baldé bëri ak Boy Niang yaa ngi dégg li ma la ko baax ak dimension bi mu bëreeg ñoom ak fi mu àgg ak ñoom. Mm-hmm. war ngaa xam ni. du fa bàyyi rëg rëg bàyyi bëreeg Eumeu Sène bëreeg Balla kon du fa bàyyi rëg rëg mm-hmm. moo la gën a xam ni champion yi ci réew mii kenn du leen tudd di bàyyi rëg mm-hmm. kon rëg rëg daal man pour doon mën a ci li nga xamante ne moom mooy li ma war mooy li coach def wax dem liggéey yi te nag li grand Max Bergade wax moo ci ne. mbër mu ndaw du préparé day pare. day pare. Mhm. dafa war a pare mais warul di préparer ndax kenn waru koo soññ ci li nga xamante ni si moom lay def ndax nag ku ñemee entraînement la waaye warul mën a naagu ba bàyyi yoon wi mu nekk muy dimension bi di entraînement man loolu laa gëm ah, course Reug Reug nee na on va lui chapeau bu affronter Modou Lo waaw amaa waxoon na ko ah. Euh, booy ñaa waxoon na ko ñoom ñëpp dañ minimiser woon astamaak rëg-rëg nag moom bu defagul lu leer man pour man combat de référence am dëgg dëgg dëgg mooy contre Sa Thiès mais ak Franc non bi mu bëree yu mu bëree ba pare ko ah ok waaw dafa bëre combat boo xam ne man sama nattuwaay moom ci lutte avec frappe. waaw wax dëgg yàlla bu Sa Thiès bi la. waaw te man examen boo xam ne daf ko échoué la. waaw loolu parce que ci mbappat ñu koy bàkkee giñ koy wone yépp ci la ko Sa Thiès ràccee suruxal ko ba teg ko fa mu koy teg donc loolu booy wax ak ni Modou Lo ñi muuma ñi gumba yëpp xam nañ li ngay wax wax la rek pour jot ca mais gëmoo li ngay wax noonu la demee hmm. voilà te Reug Reug mhm. daf ma dese leer ndax saf gi am na ci moom mhm. par rapport ak lutte avec frappe hmm. saf gi mooy lan. saf gi mooy nga mën xeex bi muy wax ci Balla Gaye ni nga doon boxeur rek ñu bàkkee la mbër bu mën a dóor ak. kenn mos koo def Balla Gaye. à part peut-être loxo bu diisu bombardier. bu ko mhm. dal. déstabiliser ko même boo demul ardo. Mhm. loolu ardo la ci physique. waaw loolu dëgg la voilà. mais sunu coach yi ñoom ay làmbaloog lañu ah. Vito ah, Badiane def gis nga. lu mu fi ah. toj nga. coach Malick Diop mu fi toj. mais on va lui tirer le chapeau buy affronter Modou xam nga buy affronter Modou Lo. xam li may wax rek maanaam léegi ñëpp koy suivre. Ah. dafa dem ba nekk sport tey bu bokk si Sénégal tey. te yow boo nee doo suivre lamb sax seen doom yi si kër gi sax dañuy. force lamb di ngeen toog di añ ñuy waxtaanee ah. toog ñuy reew ñuy waxtaanee lamb te doo si mm. mën dara. dëgg la euh, xëy na rëg rek li may wax à chaque fois rek maanaam moom des fois am na fu muy waxee nit ñi des fois dañuy gis si moom arrogance dañuy gis si moom lii. wax na ko mais tey mbër bu am fit. Mm. mooy rëg rëg. Mm-hmm. parce que Reug maanaam bi muy jóge fii. Hmm. di dem si àll bi am na ay vidéo yu commencé génn ku ñuy wax Coor production yor ay vidéo di ko génnee waat. ok boobu tollul ni mu toll. Hmm. mais boobu da doon fii dugg si ndox yi si biir séeréer yi imposé wu fa. Reug Reug voire 4 wala 5 ans yoo xamante ni tey lutte simple Sénégal tey na nañu def ko tëj. Hmm. tey pas ancien couloir boo fi dëkk micro tey boo ko waxee si Reug mu ne def na lu mbaaxam mooy maanaam bëgg a bëggaat aussi ne dama yenu Sa Thiès li ma waxoon dama koy def kut mm. kaaku boo ko seetloo loo tax Sa Thiès sërixal ko mm-hmm. parce que jàpp na mais nee na dafa bëggoon yenu mm-hmm. moo tax Sa aussi nekk un athlète bët boo xamante aussi dañ gis si ay entraînement mu si doon liggéey vivacité ak déplacement mm. Mm. moo tax combat boobu noonu tey mu demee noonu tey contre Sa Thiès mais Reug Reug tey bu waxee ne nit ñi dañ ma tam dëma mm-hmm. parce que rek am na ku ñu si waxtaan mu ne ma Reug Reug ku seetaan vidéo mi yàgg yi nga xam ne moom ak Bombardier bi gars yi naan combi nga xam ne yàgg na daane noonu mbër mm-hmm. parce que noonu noonu Mbapat terrain gaal gi fii ni mm-hmm. daane noonu noonu di di dugal tànkam sax ñi ñaa ngi naan kii li muy def ni est-ce que wóor na. man bokkuma ci ñi ñuy accepté loolu quoi foofu peut-être gëm-gëm lay nekk. Mhm. waaye Modou ko Adama na rek. tey booy ne day bëre di xeex ngeen yéeg suuf muy xeex ngeen rëpp muy xeex lu mhm. bu jàppee Modou Lo ba jàpp fi mu ko war a a dóor mhm. est bi dina feeñati ah. loolu mooy question bi nga xamante ni moom la ñu war a posé wu waaye en ak lu mën a xew combat la boo xamante ni tey mën na taxaw si kaw mu neex Modou mais Reug Reug aussi quoi qu'on peut dire aussi yegsi na. Mm-hmm. ci ah, VIP ba pare loolu moom kenn waxatu ko. amul maanaam ku mu mënul bëril si biir yi amul. Mm-hmm. ku mu neex nag da lay neex nga nangu bëreeg moom. bëri ak moom ku mu neexul aussi mën nga dem seeti leneen. Hmm. waaye mu ngi ci biir VIP moom. jërëjëf Boucar si éclaircissement yu leer li nga wax si rëg-rëg donc dañuy jàll toujours si euh, journal record record mu ngi wax si rëg-rëg nee na bés bu dajee ak Lac 2 yaakaarul combat boobu am nul xam nga hmm. mooy mbër. Hmm. rëg-rëg dafa nekk mbër bu gëm boppam. xam nga sénégalais il ñu bàyyi yenn yi rëg-rëg dafa nekk mbër moo xam dafa gëm boppam. moom dafa gëm ne moo mën ay bàll moom dafa gëm ne moom moo mën ay modloo gëm-gëmam la. Hmm. loolu gëm-gëmam la mais la réalité du terrain c' est autre chose. mais loolu il foog que ñun nangul ko.

pour conclure sujet boobu. xam nga fan mooy lan mooy fawum lébu. dañuy màttante. nee naa ay eh, ñii ñoom seen biir. ah lii de ñu dóorante kurpeñ tëf. Mm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. saagante. Mm-hmm. ñu ni ñu kurpeñ euh, bi dalaat da genn ñu ne ah yéen ngaa bëgg a ëppal de. pour wax la la ñoom. Mm-hmm. seen xeetu dundin ak seen xeetu waxin Reug Reug sax wax na ko. nee man damaa wax sax nit ñëpp jàpp ni damaa réew. te fekk na man noonu laay waxee. Mhm. mais ci kaw noonu laay waxee. Mhm. mooy li nga wax noonu amul kenn kenn ku koy dindi ci àdduna. Mhm. rëg-rëg du mbër moo xamante ni si dafa dem fee di tappale. ba mu neex ko mu ñëw ni day yéeg ci kaw. dëgg daf ko liggéey dafa rampe ba ëgg si. bu Moussa ñëw esat Ibamaar bu ne tël. wallaahi mbër mu mu ne kobas ni la nii. ay reer ay jàpp. ma nga wattu benn genre sulu boo xam kenn mm-hmm. xamul xale bi nan lay nuróon mm-hmm. mais moom xam na boppam mi nit ñi xamuñu ko mm-hmm. moo waral tey mu jéngu nii rayante wane boppam ci ligue avec frappe wane boppam ci ligue simple moom kenn waxatu ko kon daal li ma la bëgg a xamal daal man mooy. dëgg su wax rek. Mhm. laa bëgg moom mu def ko. am na stratégie boo xamante ni mu koy teg ci diggante ak Modou Lo mhm. jaru ko. Mhm. Modou Lo moo demandé ne xale yi lay jël si. te lam wax loolu lay def. man daal li ma koy conseillé mooy lu ko ci wax dem liggéeyi jàng xeex jàng yokk bëre bi. yokk doole. man loolu laa gis. donc euh, sujet boobu ma je pense c'est intéressant par rapport à Reug Reug Reug Reug moom. Euh, ku ku mu munul daan si làmb ji. amul non làmb loolu moom. mu neex ñenn ñi mu naqari ñenn ñi. rëg rëg moom ku munul ku mu munul daan si làmb ji amul. ku mu jël sa avance mun na laa daan ku mun nga kaa daan. parce que daf ko liggéey ba àgg fii donc il xam nga booy fëgg buntu VIP yi nag dina am VIP yu mu neex. am ñu mu <laughs> naqari mais il a travaillé il a bourlingué il ba àgg tey si seen niveau donc daal mais. Euh, ni ko gars yi di critiquer parfois tamit il faut ñu comprendre ko nit ku gëm boppam la. nit ku gëm gëm gëm boppam la te sportif da nga war a gëm sa bopp. da nga war a gëm sa bopp te rëg-rëg il est de la de la race de ces de ces lutteurs tey fi ñoom Balla Gaye de tolloon na foofu Balla Gaye de tolloon na jamono joo xam ne dafa gëmoon ne day daan Yékini. amul lenn lu ko lu mu gisul woon ne day daan Yékini. kenn mënu ko woon télé sax bu ko musaa gis. dafa télé loolu est-ce que doo ci ak image bu mu mën a gis jëkk gis yëkkani ci àdduna naa xool ko. Uh-huh. kii bi moo ko jàppee. waaw ah, gëm-gëm la. billaahi te li muy wax loolu lay def naa am kii man damaa xa billaahi keroog <laughs> xool keroog ngeen di xam bi maa ay ci ponkal. jël play bi toog. Uh-huh. xoolal ñun suba la laa la wax jël play bi. Uh-huh. di play ba waaye doo ko bàyyi. ba sept heures. yow yaa ko wax ni ko mbër xanaa xamoon ni da nga am combat mu ni eh moom. yow ngay nekk fii ñu teg la lekk ngay am problème bala day lekk ba de sangoo lekk nga. yoonam nekku ci mooy li nga wax. yonent bi wax na ko nee na am ragal du am dara. contre Tyson. Mmh, nii la ko doon waxee. kii bu ma ko jàppee. non kii bu cinq secondes laa ko may seen kanam. Mmh. contre Baboy. Mmh. Baboy at bi sifflé mu daw rentré bala baala def trois pas mu ne wuy sama ndey. si parce que stratégie bi mu indi woon ak li nga xamante ne mooy lañ ko geetare woon. mooy bu at bi sifflé moom buy dal ci kawam di ko daal mais. xam nga boroom xel ak ay boroom mbokk koo ëpp li mbokk mënoo ko jóg. at dafa siffler rek ba booy ni bëreet ngóor si daw wa ko deux pas. daw jéggi saako yi ñëwaat. Hmm. ca la làmbam yàqoo. Hmm, dëgg la pour wax ne la champion la. champion da ngay am gëm-gëm. pour da am gëm-gëm waaw loolu moom loolu moom dañ koy. nangul dañ koy nangul rëgër nangul ko <laughs> Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 jamono jii booy xool c' est pas le Balla Gaye 2 de 2013. mais dafa gëm ne day daan tafaatin. mais mais mais guy loolu ngëm-ngëm la. guy gi bi mu dikkee. Uh-huh. boo waxee dana naan dama lay sempi. waaw loolu ngëm-ngëm la jaxase na la psychologiquement. Hmm. ci xalaat tellement que ba yow da ngay jàpp ni foo jàpp guy gi mu jàpp la fa yow yaa ngi ca kaw. Ah. Um, permo cinq minutes moo ñu desee si temps bi mais lenn daal xam na naa la gis nga ñeenti mbër yi hmm. kii di rëg-rëg kii di Franc Serigne Ndiaye 2 saa Thiès amul ku ñu mën a daan si la amul ku ñu mënul ak ñoom duut saane yii di ñëw xale yooyu amul ku ñu mënul daan si làmb te làmb ji ëllëg tôt ou tard seen loxo lay mujjee donc VIP yi nekk ci kaw nañu liggéey bu baax a baax a baax bu pour terminer en beauté parce que ñooñu tamit duñu leen xale yi duñu leen jéem a may dara donc pour terminer revue de presse bi rek xam naa lii dinañ si ñëwaat si beneen sujet mm-hmm. Siteu qui a rejeté les 80 millions proposés par Baye Ndiaye parce que ñu ngi doon dox combat ak Balla Gaye 2 il a demandé euh, mu rejeté 80 millions donc loolu moom xam naa ne bu nekkoon père boobu moom da koy jël Eh, ay waa ji. mais loolu est-ce que deful erreur. bu rëy. est-ce que xam nga lu tax mu def erreur. Mhm. Siteu dafa am dimension bu mu toll. Mhm. ci réew mi. Siteu maire la fa mu ne. Siteu kilifa la fa mu ne. mooy maire Lansar. doo ma xanaa. Mhm. man xaw ma maire Lansar man Siteu laa xam. ndax moo ma wan ma gis. Siteu laa gis mu rangale lu minimum minimum. 30 moto. jox xale yu ñu dem liggéey. 30 moto pompe ñu manque ndox mi. yaa ngi dégg jël këru 60 millions tabaxal ko kóllëreem si te laa ko gis. aji néew doole yi nekk ci koñ bi képp ku mu xamante ni si leer na la ni Siteu leer na la ni amoo depanse tey du la ko yot ba ca guddi la la ko yót mm-hmm. man Siteu laa gis ci loolu mm-hmm. kon quatre-vingts millions taalibe Bamba uh-huh. sañoon mu jël ko quatre-vingts millions du quatre-vingts francs loolu dina si ñëwaat si ah. beneen